nga xam ne moom mooy sport bi mu jëm ci yëgli boobu nga xam ne suñu mbokk Walfadjri ñu ngi koy ñu ngi koy amle Momo Ndiaye Walfadjri ni ñu ko xamee woon ci xeex ngir liberté de la presse Walfadjri taxaw ngir joytu ak jàmbat téye gi ñu téye kenn ci njabooti kër gi di Pape njaay di ab chroniqueur judiciaire xam-xamam màcc ci wàllu yoon ak yoonal ak mbirum tasum xibaar. deful loo moom Pape Ndiaye yoon teg ko loxo ay bés a ngi nii groupe Walfadjri lëkkaloog administration ne pare nañu ngir amal ay série de manifestation ngir méttit lu jàpp gi nu jàpp Pape Ndiaye groupe bi ak personnel bi fas yéene ci ràññeeku lool àjjuma di vendredi 17 mars bu 15 heures jotee daañu amal ab conférence de presse ngir laaxaan mbir mi àdduna wërngal këpp ba képp ku ci war a jote jote ci buñ ca noppee dimanche yemoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars 19 mars nekk bëccëg bu historique ci histoire Walfadjri bu 15 heures jotee woo nañ askan wi yëpp ci locaux yi Walfadjri ngir amal fa sitting bu yaatu loolee yëpp nag ngir sàkku libération wu Pape Ndiaye waaye itamit liberté de la presse. man li ma gën jaaxal ci liberté d'expression moo de xanaa bu ñuy def régulation média privé yi rek lañu war a def régulation. mbokk yi bu ko kenn wuute ajjuma ak dimanche. lu koy Walfadjri bu 15h jotee dooree ko ci conférence de presse jeexale ko ci ab sitting lii nag doon ay jéego yu njëkk yu nar a amal te fas yéene cee toftal yeneen su fekkente ne sunu sàkkuteef matewul. sitting boo xam ne ñu ngi koy waajal ni ki dimanche waaye laata loolu euh, ajjuma bi nga xam ne moom la ñu dégmal ñu fas yéene amal li nga xam ne moom moo di conférence de presse ci diwaanu Walfajiri googee ngir suñu naataango boobu nga xam ne moom moo di Pape Ndiaye ñu daal di euh, fexe rek nag ba ñu daal di koy teggi loxo ndax nag ci dëgg-dëgg euh, taskatu xibaar bu demee bañ koy tere wax daanaka rek jafe-jafe tàmbale naa am Demba mu ngi noonu mu mel ni c'est un événement qui tout le monde ñëpp a war a nekk ah ñëpp ñi nga xamante ni euh, ils sont vraiment euh, épris par lu ñuy woowee euh, liberté l'existence de la liberté d'expression ak aussi la liberté d'opinion su boobaa je pense que ñëpp dinañ fa dem parce que c'est pas c'est pas Pape Ndiaye la ñuy défendre mais dañuy défendre un principe. Mhm. principe bi mooy tey c'est lui la victime. mais suba mun na doon man mun na doon yow mun na doon keneen donc ku xewle même bu dee euh, naxar la soxla nga euh, ku ñëw nekk sa wet du mm-hmm. également lu ñu defoon ak Pape Alé Niang on la on va le faire avec euh, Pape Ndiaye parce que c'est le même combat mm-hmm. le combat mooy la liberté de la presse comme lu ko président Macky Sall waxee woon bu mu ne woon TV 5 dinaa ko rappeler ses propos nee na moo waxoon si sama gouvernance vous verrez jamais un journaliste